dal leen ak jàmm mbokk internet yi di leen di jaajëfal di leen di dalalaat ak jàmm ci suñu chaîne YouTube bi di dikk ak yéen comme niñ koy baaxoo di defee di wax ci mbir mi nga xam ne rek moom moo soxal candidat yi nga xam ne rek ñoom ñoo fas yéenee posé seen candidature ci élection 2024 yi te mu nekk ay candidature yu nga xam ne rek ñu baree bari daal ñi jàpp ne jamono yi ñu toll nii dañoo nekk ci guddi gu ba setagul ku ci mel ne kii di président Ousmane Sonko mi nga xam ne moom miikat war naa janoo ak ki nga xam ne moom mooy juge ci problème bi mu jot a am ak Mame Mbaye Niang ci le 17 le 17 boobu war a nekk mbir mu nga xam ne rek ci lañ war a daal di ceytoo lijjanti liggéey mbir mi nga xam ne rek moom moo war a daal di gunge kii di Mame Mbaye Niang ak kii di Ousmane Sonko pour ñu xam ñoom ñaar fan la dëgg gi féete dëgg gi nga xam ne nag ñu ngi xëy di ko wër bis mu nekk saa su ne di ko càmbar fii ci biir réew mi te tamit mënaguñu koo gis booba ba tey dëgg googu nag nekk dëgg gu nga xam ne rek war nañ koo leeral gannaaw bi ñu jëlee ay décision yu nga xam ne rek ci le 16 mars yële passé lañ ko daal di amaloon wantekat nekk mbir mu nga xam ne rek ñu bare bari d'accorduñ ci woon ñu daal di xëccaat li nga xam ne moom mooy projet bi indiwaat ko ba ci le trente donte le naka le trente boobu am yenn ci décision yu nga xam ne rek jël nañ ko yu arrangé wul kii di Ousmane Sonko yenn te arrangé wul kii di Mame Mbaye Niang taxoon ñu daal di def li nga xam ne moom mooy ab appel appel bu nga xam ne rek moom moo tax ñu daal di xëccuwaat li nga xam ne moom mooy àtte yi daal di koy indi ba ci date bi nga xam ne rek moom mooy le 17 le 17 bi nga xam ne nag ci lañ war a daal di fas yéene caytu lépp lu dellu ci seen diggante ñoom ñaar muy kii nga xam ne moom mooy moom bay ñaar ak ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko seen diggante ñoom ñaar.